Monsieur le Président Abdoulaye Baldé, permettez-moi aujourd'hui de confirmer, devant Djabir, devant la zone sud-ouest, dont je suis le coordinateur aujourd'hui, que nous allons dire oui à Michel Maire et nous portons notre choix présent à vous. C'est la jeunesse qui m'envoie vous dire, Président Boulti, regardez, nous sommes déterminés, on s'engage derrière vous.

On ne peut pas voir de fumée sans feu excusez-moi les gars mais l'eau bon nous on s'en passe hein. ne problème gars hein? le maire 100 Balde, on est Balde balde su ñu nous message le président Macky Sall moo est en hein. avec balde jusqu'à la mort présent doléance yi wax parce que doléance yi mën naa wax ko je vous remercie te je sais que y a un projet phare que le président la Baldé est en train de dérouler pour Diabé c'est le lotissement de Diabé nous sommes en phase finale amul benn problème peut-être y a des inquiétudes à mon niveau d'information peut-être il y a des inquiétudes du gars yi di wax de gauche à droite mais bon man yëguma problème à mon niveau mais li may wax mooy monsieur le maire il va finaliser le projet Inch'Allah. et que Diabé tali yi ngeen di laaj yoon courant bi ngeen di laaj l'extension

Euh, di si jiital Mariama ma nga xam ne moo jiitee jigéenu parti bi fi si Diabé mi ngi fi toog di nuyu bu baax a baax aussi sama frère bi di Ousmane Sagna nga xam ne sama frère la ñoo jógee bokk Daasalaam ñoo ba fii moo fi jógee di nuyu Aliou Sagna nga xam ne moom moo jiitee ndaw parti bi fii si bi quartier wu mais di nuyu aussi di bëre nuyoo suñu rakk di Mohamed Badji yi nga xam ne moom mooy yor parti bi ci zone bi parce que danañu nekk ci organisation rawatina ci mbirum ndaw mi mais di bëre nuyoo association Paradise nga xam ne ñooñu invité tey di leen gërëm aussi di leen gërëm bu baax a baax ci engagement bi ngeen ñëw pour jàppale Mohamed mais aussi jàppale ñu ci parti bi ci mbébét boo xam ne am nañ ko pour gën a defaraat dëkk di leen gërëm bu baax a baax ci loolu di gërëm uh, waa parti bi yëpp ñoo xam ne ñoo nekk fii ci Njaawi en tout cas bu ma ñëwee suñu xol suñuy xel daal na suñu xel aussi bu baax a baax naa ni bu ñëpp àndee fii ci Njaawi yow Aliou Sagna naka noonu Mariama ak Ousmane ak ñëpp ñoo xam ne ñoo nekk ci biir parti bi fii au niveau de Diabir bu soobee yàlla bu élection ñëwee dinañ fi gagné gagné bu rëy a bu loolu weesoo Diamy quartier boo xam ne quartier bu am histoire la si biir Ziguinchor te c'est vrai que bu mu ñëwee ba léegi am nañu ay yéene yu bare bare pour defar ko fii si Diamy mais tolof tolof moo doon nekk Diamy euh, amaguloon lotissement te xam ne que bu amu rek mënoo fay ni dara mënoo fay ni ndox. Mon a dit électricité à Yénen jumtukaay mais là je pense que dans un mois un mois ça c'est trop ce sera un vieux souvenir Amna Yakani que dans la semaine qui vient parce que le problème bi jafe-jafe c'est vrai commission de bi liggéey nañ les services de l'État yi au niveau de le gouverneur le préfet bi les services de domaine des impôts et de l'urbanisme liggéey nañ ba pare mais lotissement dafa am fu muy jaar parce que il faut que le ministre de l'urbanisme mën a autoriser lotissement boobu papier boobu moo deson mais gis na ak ministre bi yaa sera quatre jours à Dakar yónnee nañu aussi ndaw mooy le directeur de l'urbanisme moo xam ne moo nekk fii si Ziguinchor mooy Ablaye Badji mi ngi Dakar am naa yaakaar ni que d'ici le mardi mercredi këyit boobu dina ñëw te bu ñëwee rek dinañ commencer distribuer looyu lu ma leen di ñaan lu leen di waa jaawir mooy que lotissement bi yéen laa ko dënk Ousmane defe naa mooy président commission domaniale mu ànd si ak le délégué de quartier na ngeen ko nu mu gën a rafete pour que xiiroo a ngaayoo bañ a am si mbir mi képp koo xam ne yeeyoo na benn parcelle na ngeen ko ko képp koo xam ne defoon na demande ke nga xam ne que fii la dëkk si Tadiabine nga ne ko ko jox ngeen respecté aussi loo xam ne loolu mooy le droit coutumier ñëpp ñoo xam ne amoon nañ fi suuf ngeen séddaleen ci mbir mi pour coow bañ a fii parce que loolu nekkul sama coobare fépp koo xam ne dem naa fa man mbirum suuf dama si maandu te bëgg naa lépp loo xam ne dañ ko si def jaar si yoon parce que souf c'est très sensible au niveau de notre région pour que képp ko xam ne mbir mi ñu am ko bu amé nak waa jaabit bu ñu amé ba desal bu ko defee keneen ko xamné man mën na laajte si biir dëkk bi man nañ ko jox naka noonu les employés municipaux parce que bu bëgg naa ci def ben cité des employés municipaux mais naka noonu conseils municipaux yoo xam ne ñoo nekk ci biir bi ak yeneen citoyens xamné ñoo ne ci nekk si Ziguinchor te laajte pour mën a fi ci si c'est un quartier d'avenir. Moi, un quartier pour amener Zinger Shore. le gana, C'est très rapidement que ça va se faire. vous dis que vous m'avez un engagement. Que vous soyez d'ici le mois de janvier. Voilà le mois de décembre. Vous nous demain, le 6 mois, vous êtes prêts. Vous 6 mars. de me passer. day fekk déjà joxe nañu looyi lu ma leen di dig ni que déwén balaa waxtu bi di yem ñu fi yegg si dinañu defar benn tali boo xam ne dina jóge au niveau de Lindiane ñëw ba Diabir jóge fi Diabir dem ba université pour que naka noonu dinañu renforcer le système d'éclairage public au niveau de Diabir dinañu yokk lamp yi dinañu indi ndox. électricité bu doy c'est quartier bi pour que le Gambie aussi soit un quartier moderne à l'image des autres quartiers de la c'est une promesse que je vous fais, c'est un engagement que je prends et vous savez alors, avant le mois de décembre di a gis ni que Ligue bi dina parce que dina fekk joxe nañu passer, yi ba pare dinañ ayon, ay y a indi électricité bu doy dinañ indi d'or ndox bu doy naka noonu seen poste de santé bi na ko diggoon naa fa ne que dinaa fa yokk ay lal dinañ fa moderniser seen poste de santé bi loolu aussi bu soobee yàlla bu nawet bi balaa nawet bi di jeex indi ay lal bu ngeen mën di hospitaliser ay nit fi donc waa Diabir maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm waa Njibano parce que ñoom aussi ñëw nañ te ñooñu aussi je pense que diggoon nañ leen ni que dinañ yóbbul électricité mais loolu aussi bu ñu indee électricité bi si Diabir dinañ ko yóbbu Njibana. parce que damay faral di wax ni côté bi jibe na naka noonu jibe loor ba Daaru ñu ñëpp benn lañu nga ni ko man seen doom laa seen frère la seen